ko gisee fi ñu nekk ñoo ngi fi nga xamante ni mooy Jannatul Maxwa ci kër ki nga xamante ni mooy Serigne Abdou Wahab Mbacké moom Serigne Modou Faty Khary Mbacké moom Serigne Massamba ñu ñëwoon tey euh, doon fi def li nga xamante ni moom mooy euh, bëccëgu màggal gi waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy taalibe yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndongo yi nekk ci kër gi ak liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci bisu màggal gi waaye tamit dinañ euh, seek waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy sëriñ mi tamit mu waxtaan ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy liggéeyu daara ji ak ñi nga xamante ni la ñuy def ci bisu màggal gi yooyu yépp yëpp dinañ leen ko dégteer wan leen ko ci li nga xamante ni moom mooy bëccëgu màggal gi lépp dinañ leen ko wan daal ci bëccëgu màggal gi fépp ci kër kilifa yi nekk ci biir Touba rawatina ci li nga xamante ni moom mooy màggal gi bu 2021 ngeen topp rek ci Tawfekh Production ci li nga xamante ni moom mooy màggal gi 2021 ci biir Touba ak li ko war ma ne sunu borom julli bu sant sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ñaanal maam Mor bu sëñ Masamba bi jëw nañu kër sëñ Masamba mooy xalifa bi man mii nag ci boppam sëñ Cheikh Mbàkke bu sëñ Modou Fall xarit ci boppam moo doon sama sëriñ di magu Abdou Wahab mu dem àjjana bu yàggul rek si boppam ma jokk dellu jokk si sëñ Abdou Wahab mbakki si boppam ndax dama am njaboot gu nekk ak moom muy soxnaam ak mbakka mbakka yi nga xam ne si boppam meññ na leen li gën a yokk tax ma jokk si moom mooy njaboot gi ma am ak moom si boppam day moo ma boole ci sëñ Touba di ñaan yàlla it mu yàgg fi lool ànd ak wér ak wérle di koy doole santit ci taxawaay bi taxawaayu màggal gi si boppam ñun ay taalibe rek lan waaye fi ñu joxoñ rek la ñuy la xool te magam ju baax ji su boppam dafa mos a joxan sëñ Abdou Wahab si boppam kon fa ma joxoon si boppam fa lay euh, man la Ndiaga Seck euh, di wóllëre ci sëñ Abdou Wahab Mbacke gannaaw loolu maa ngi sant yàlla sant sëriñ tuuba euh, di sant Serigne taxa Mbacke yàlla na fi yàgg te wér Euh, loolu sëñ bi loolu dañ ciy sawar parce que ñun euh, man dama bokk ci ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci ci àll bi euh, ñu ngi féetee weer ci boori Italie ah, sëñ bi taxawuñu ji ñu ci maanaam yóbbuñu ci yoonu Serigne Touba bi duñ ci sonn bis bu set waaw kon nag mënuñu dara ñu sant ko rek te dëgg yàlla bis bu set mu ngi taxaw ah, di ñu soññ ci liggéey bi ah sonaluñ ci dara kon dañ koy ñaanal rek li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko Serigne Touba defal ak Serigne Modou Fatou Khary mi ñu yaakaar barke waaw li ñu sëñ bi sas si waxtaayu màggal gi wan comme ni ni Baye Fall di doxee daal ñu sëñ bi sas instant nii parce que ku nekk ñun Baye Fall dañoo a roy suñu royukaay mooy Cheikh Ibra Fall te Cheikh Ibra moom lan lañ njëkk a wax si Baye Fall yi takku jóg lañ xam te sëñ bi moom loolu la gën a moom tamit loolu la gën bëgg si mbirum baay Fall moom sax boo ñëwee moom day mel ni sax moom Baye Fall la moom si boppam parce que moom nee na chaque jour liggéey gi moom sax da nga ko ci njëkk a ji si waar bi kon nag ab taalibe moom waroo sax sax di xaal sa sëriñ san mu nekk ci waañ bi moom instant yi li ñuy am suñ kantalaay kàttan di ko si jéem mook suñu jëriñ ji nga xam ne mooy suñu kilifa kii nii jëriñ yegsil nii yegsi ma nii ma xool mu xoolaale ko bu baax que kii dafa am ñoo xamante dañu ay royukaay lañ si kër gi ak suñu sang bi moo xam ne jëwriñ la suñu jëwriñ waaw ñii nag suñu mbokkum taalibe ay boy faal ñii ñëpp ku si nekk ñu ngi siy def sa këttalaay kàttan te kon bés it Sëriñ Tuubaa ak Seex Ibra Faal la ñu war a roy Seex Ibra Faal rek bés moom nañu roy rek xam nga chaque jour du am na loo xamante ne nit di nga bëgg si moom ba doo mën a wax si moom mu ëpp parce que moom dafa ñuy def loo xamante ne da ngay ñëw sax ànd ak nit sax ñu naan la ana sëñ bi te fekk ne moom nga jàkkaar lool ñëw dañuy liggéeyloo di jëriñ jëriñ tax ñuy jëriñ di ñu defar am ñoo xam ne ay éléments ñu ngi fi woon dañoo sànk woon comme sama classe gii mais sëñ bi dañoo defar te bëri na fi kon duñ def loolu sant ko di ko gërëm di ñaanal ko fan wu gudd ak wér-gu-yaram ak yokkute yal na ko suñu borom defal si doole Cheikh Ibra Fall. waaw ay kàddu cant lay doon muy ñuy feddali sunu taalibe ci kanamu sëñ Abdou Wahab Mbacke sëñ Modou Fati Xari ibnu sëñ Massamba Mbacke ñuy eh, eh, feddali sunu taalibe ci moom mu doon sunu bunt ci yoonu sëñ Touba yi muy koo xamante ni ñun sunu royuwaay la ndax euh, depuis lu mat ñaar fukki at ak juróom ñi ngi ko ànd ak moom depuis fële euh, kër gu mag ba fii ñu nekk nii ci janatu ak lépp li nga xamante ni mooy réalisation yu mu def ci diggante boobu léegi ñun mu doon yokkute ci ñun waaw ñu gis ni ci mbaar lañ nekkoon commencé fa di fa màggal ba tey ñi ngi nii dañuy rey ñaar walla ñetti nag di ko euh, di ko màggale kon ñun royuwaay lañ ko def di ko ñaanal euh, yàlla yàggal ko fi lool te wér ci waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, Serigne Abdou Gueye Sylla lañ koy wax nekk taalibe Serigne Abdou Wahab Mbacké nekk Baye Fallou bu waañ bi nekk tamit jëwriñ ci biir kër gi waaw ñun nag suñuy kàddu du bari day nekk kàddu yu cant rek ndax euh, jëwriñ ji nga xam ne mooy jëwriñ Moussa moo xam ne moom moo nekk moo moo nekk suñu kanam ak euh, sëñ euh, ma Male ñoom bu nu waxee rek daanaka amatuñu ñu ciy wax ñun ndax ñun ndigal rek moo nu bàyyi fu nekk ñun ñi nga xamante ni ñoo faree ci liggéey bi nekk ci waañ wi ñun toogewuñ fi lu dul ak ndigal def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi taxaw leen ñu taxaw dox leen ñu dox ndax loolu rek la ñuy ñaan yàlla ak yonente beeg sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di def lu dul eh, sant sëñ Abdou Wahab Mbacke moom mi nga xam ne mooy sunu buntu ci këruk sëñ Touba gi ñu ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm ngërëm loo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem ñuy sant yàlla bu baax ci bim ñu eh, eh, naalee ci boppam ba nu mën a liggéeyal sëñ Touba Xaadimu Rasuul kon nag amuñu fayam ñu ngi koy am maanaam sant sant goo xamante ni amul fu mu tàmbalee waaye amul it fu mu yem waaw. yu bari daan manqué ci kër gi waaye bi defee sécurité bi xool nañ ren ne dara manqué wu fi. kon nag li ma lay wax rek li sëñ Abdou Lahad waxoon rek laa lay wax mbay mu nangu xool yi nangoo ko gën waaye day fekk ñun ñëpp ñu nar a nangu liggéeyal Serigne Touba ndaxte mag nga jiital ko mu jël gone teg ci wetam gone nga jiital ko loolu dana xaw a métti waaye lépp nag dañ koy sant Serigne Touba ndaxte ku ci nekk li ngay jëf jëfaloo ko keneen sa bopp nga koy jëfal ndax loo jëf rek loolu ngay fayeeku waaye ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax ñoom ñi ñëpp ndax nangu nañ ma loolu ndax dagg nañ seen yitte te ni ñu ko defee nii lañ koy defee ba bis bi si ndax bu bis bi del see danañ ci fàttaliku Serigne Modou Faty Khary mi waajuru Serigne Abdou Wahab Mbacké moom fii lañ ko koy fàttaliko te ñoom ñëpp dañ ciy toogaat tamit ba keroog bis bi del si ñu ànd kook sécurité bi noonu loolu lañ fi dara liyut te ñoom ñëpp ku ci nekk fa war a taxaw yaa ngi fay taxaw di defar te dara manqué fi dara yàqu fi lépp rek ngir yaatal gan ñi ak kenn du leen sonal ci dara loolu dong tax ñu def sécurité bi waaw ñun de maa ngi jógee ba Kaolack nag waaw ñu organisation bu baax rek chaque année ñu koy organiser def ko organisation bu baax parce que fii dara du fi manqué ndugg mi lépp day mat day doy macha allah bu ñëwee togg ko togg yu neex yu baax ñu séddale ko nit ñi lekk ba suur naan ba mandi sant sëñ Touba rek waa sant sëñ Abdou Wahab sant soxna Adja Jaxate tamit ndax lépp moom la ndugg mi dara manqué wu ci barke Serigne Touba. waaw organiser Pastef rek affaire yi moom Pastef rek ak ànd nekk benn booloo moo ñu ko yombalal loolu moo tax lépp yomb bu ñu xëyee daal ñëpp nekk ci rek am organisation. ko defee dara du tardé yëpp a pare ndoo macha allah. macha allah démb dong mu ngi ñu démb dong bu ñu jullee pare mu ngi naa ñu màggal gi lu mu xat xat xat terewul seen farata yi bu leen ko fàtte dee leen jàpp di julli ndax loolu moom mooy farata waaye topp màggal gi xumbaay mbéem bumbaay rek ba doo jaamu yàlla amul benn sens wax dëgg yàlla fu mu toll dañuy soñu di ñu dànkaafu di ñu ñaanal mu ku nag ku baax amul benn problème. Hmm, Fat Bintou Camara ah métti woon na mais bon jaar na ko jikko euh, deuxième fois ren mooy sama deuxième fois maay ñëw euh, c'était l'année passée hmm. ah genre gis naa ko côté côté positif mooy loolu parce que genre comme d'après mooy loolu màggal bi neex na gan yi dañ lay teeru nice affaire yooyu noonu du coup ça s'est bien passé. ah sëñ bi moom amul moroom pour dire vrai macha allah waaw parce que ren moo nekk sama deuxième fois mais c'était pareil comme daaw euh, je suis bien accueillie affaire yooyu noonu du coup alhamdulilah. non yoon moom amul jafe-jafe ndaxte Serigne Touba moom jaral nañu lu nekk Serigne Touba moom mooy suñu yaakaar xam nga fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi suñ ko yàlla mayee pour ñu mën ko teew dinañ ko teewee waaw. waaw man moom. en tout cas maa ngi rappelé wu si luñ ma wax ba ay 98 ba léegi maa ngi màggali moom waaw maa ngi màggali maa ngi màggali 98 ba léegi waaw sëñ Abdou Wahab Mbacké moom man moom su may wax si moom sax du ma fi jógee parce que nit ku oyof la nit ku baax nit ku bëgg ay taalibeem waaw nit ku fonk ay taalibeem sëñ bi moom nii la mën a mel parce que dafa yaatu dafa baax sëñ bi ak foo ko mën a fekk si occupation boo ko ne sëñ bi kobo sax sëñ bi wuy la ak yow door a dem fu muy dem kon kooku moom na sëriñ te ñun ay taalibeem dañ koy ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér gu bëree bëri si darajay borom Touba darajay borom Touba darajay borom Touba yàlla na fi yàgg te wér sëñ Abdou Wahab Mbacké waaw loolu lañ ko ñaanal soxnaam su baax si jël na yàlla yàggal ko moom ndax man ko baax lu ko bëgg mbokki sëñ Abdou Mbacké Adja Jaxate tam ñoo ngi koy ñaanal di ñaanal njabootam yàlla barkee leen te guddal seenu fan yokk seen wërsëg yokk seen teraanga maa ngi ñaanal ñëpp sant yàlla bu wér soxna si ñaan waaw xanaa sama cant ak moom maa ngi koy tàmbalee ci sëñ Modou Patak di bàyyam ba may fekk yaayam foofa booba day bokkut ak tey booba neex naa xool trop tey neex naa xool lépp moom ci mbaax ko sant mboolem ñu dëkk ci kër gi ñëpp rek tout dañoo baax bëgg ma fonk ma dox ma cër boo xam ne bi tabaarkalla la wax dëgg yàlla sant naa leen gërëm te li leen ñaanal nag gudd fan ko wér moom wax dëgg yàlla moom gën day fonk nday wax dëgg yàlla nu muy def ci ndey yàlla nag ko yàlla fay sant naa ko gërëm ko di ko ñaanal nag yàlla guddalu fanam ak lépp lu mu bëgg yàlla na ko yàlla may sababu xaybati ja an allah